ñu ngi fii ci jaba bu Grand Yoff donte nemmeeku nañu fi bile xumbute jaaykat yi ñu ngay wax la leen sonal jamono ji di ñàkkum kaaraange di Camara di ñu nettali lenn lu fi jot a xew. tout récemment am na temps yi passé bon sama benn collègue boo xam ne dañoo wàcc fan yi passé mais vraiment agressé nañ ko nangu nañ sàggam bi ak téléphone tout ça là bon en daal. boo leen si jàppale daal tamit day gën a baax rek. fu sorewul dara Youssoupha ñu gën ko xam ci américain di jaaykat ci bërëb bi wax nañu ay misaal yuy gën a dooleel ñàkkum kaaraange gi. xeetu carte yi ñu indi ci dëkk bi ñoo gën a indi insécurité ci dëkk bi man maa koy wax nag xëccoo ak wax boo xamante ni da koy nasanteeg nit ba pare nga teggi wax jooju def leneen. ñaari yi kese ñooy indi problème ci àddina ñoom ñi lee di sàkku ci kilifa yi ñu jël ay matukaay bu ko defee ñu mucc ci ñàkkum kaaraange gi ndaw ñëpp a laxasaayu def jikkoo bay faal di légay di dundee ànd akook ngor gu mat sëkk xale yu jigéen yaa ngi ni mesure parti xaj yëpp nangootuñoo liggéey lu ñu gëm luyee appartement dankaloo fa jël seeni numéro téléphone sànn ci internet bi gars yi di woote di leen fekk si xale bu jigéen boobu bu ñamee journée cinquante mille journée cent mille soo ko nee kaay ma fay la weer salaire quatre vingt mille Ahmadou laa la waatal du ko def. pour mën ñi mën a mën a sécurité wu mën a def seen i def seen liggéey nu mu war a comme nu mu war a waree daal. jëm nañoo jege kilifa yi nekkee ci bile diwaan ngir waxtaan ak ñoom ci jéego yi nga xamante ne bi def nañu ko ngir mën a xeex ñàkkum kaaraange gi. donte noppeeguñu ngir wax ci suñu micro wante ñu ngay dalal xelu askan wi ne daañu def lépp lu ñu mën ngir kaaraange am ci bile diwaan di Grand